mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax di leen wu coono sunu chaîne la nouvelle vision ñoo ñëwoon tey di am ak yéen benn émission boo xamante ni si moom lañu ñu war a waxtaane muy émission bu am solo ñu ko nekk bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax a baax waaye si boo xoolee fii ñu toog nii tey ci parc bii ñuy wax parc Hann di nga xam ni la olof di wax ni lu yëng toujours la ko yëngal moo ko ëpp doole ndax yaakaar naa góor gi ñu war a waxtaane muy sëyi ci Ahmed Tidiane si Al fii nii nga xamante ni si mooy parc ann miin na ko xam na ko kon ñëwuñu fi rek pour ñëw fi waaye ñëwuñ fi pour hasard waaye ñëw nañ fi pour wan ne leen ni euh, moom am na loo xamante ni si am na ko fii ci parc Hann bii ndax jàpp leen date bi le 13 avril 1961 fii la jóge woon fii la jëlee woon gaynde googu mu doon yóbbul Gamal Dannasr moo tax tey nag ñu bëggul leen waxtaan tuuri ci góor googu le lenn ci jaar-jaaram fii ci parc Hann ak yeneen yi nga xamante ne si def na ko ci yeneen i gox ci kàttanu yàlla boo leen toppee seen chaîne la nouvelle vision incha allah di ngeen ci am lu bare bare bare ci kàttanu yàlla incha allah. moo tax tey waxtaanu tey bi nag maa ngi ko séq ak sama oustaz bu ñuy wax oustaz Cheikh Ahmed Tidiane Sow.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 wa sharaxa bi sadurihim xasaais al anwaar wa min xiirati xalqihi abraar asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Cheikh Ibrahim ñu ngi lay nuyu di la masawu coono di la remercier ci sa invitation di nuyu itam suñu mbokk internet yi nga xam ne ñoo nekk ci nouvelle vision bari na lu ñuy gis ay waxtaan yu ñuy seq ak yow ci wàllu histoire mag ñi fa tabarakallahu kon ni ko waxee tey ñu dellu si ngir euh, fàttaliku dund ku nga xam ne bokk na ci figure emblème emblématique yi nga xam ne histoire en général dootu leen fàtte histoire l'islam dootu leen fàtte histoire tariqatu tijaniya dootu leen fàtte histoire Afrique dootu leen fàtte mais aussi histoire Sénégal dootu leen fàtte muy al si Ahmad Tijani Sy Al tabarakallah yalla na yalla taas ñu ci barkeem yokku ñu ay leeram té duggal ñu ci suufu kirayam ginnaaw bu ñu jaajëfee sun oustad dalal ko bu baaxa baaxa baaxa baax dañuy dem régie amna ño xamanteni fekk na leen ci biir park bi te xamnañ park bi te min nañ ko amna na lu ñu wax ci góor gu gogu ma sha allah kon nak ñu dem régie te ñëw insha allah dem dakaaru jaayara mu jël fa gaynde may jamaal gaynde yóbbu na gaynde seedale alors je suis délégué délégué di parc depuis 1971 Je suis responsable responsable jardin botanique finalement responsable parc forestier de l'Anne. Euh, technicien horticole et du paysage mais aussi euh, de botanique ethnobotanique et malherbologie moo tax ma nekk ci parc bi boobaak léegi loolu moom moo fi indi woon waaw léegi nag maa ngi jël recette 2007. su ma la laajee ci histoire parc bi. Mhm. Euh, tuddal la benn kilifa bu may bu ñuy tuddee Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Mhm. ne la lan nga xam ci moom loo may wax. bëri na bëri na bëri na ay kéemtaan yu bëri yoo xam ne wax dëgg yàlla man mii di wax ak yow am na yoo xam ne yu bëri man su ma déggee ci mbiram rek daf may delloo si. parce que am na kàddu goo xam ne def sama ben xarit bo xamne wax deug yàlla fa nekkon ci tolof tolof maam Cheikh mom bu may wax ci mom alhamdullilah alhamdullilah ne koku bu fekkoon dañuy def association amie des parcs de anne mun na nekk président bi ndax ku ko bëggoon la. maam Cheikh moom beneen affaire la ci man dafa am xool man dafa toll ci moom ba pour ma a seede ci moom dafay jafe des fois waaye daf may am yu bëri yoo xam ne daf may dellu si parce dégg benn bis ci jamono sama xarit boo xam ne dafa nekkoon ci xat-xat ma ne ko dem seeti fu mu nekk mukk waaye la déglu te sama rajo di déglu rek maam Cheikh ne ñun ñëw ñëw àdduna bi fii pour mbégte àdduna bi dañ fi ñëw pour nattu gis nga ci laa jóge wallahi alazim dellu dem prison seeti sama xarit boobu waaye maam Cheikh ak parc bi am na couleur yu bëri. fi daan def retraite maanaam daan dugg ci biir parc bi am fu mu laqatu boo jaaree taxeem dugg ci biir lu yàgg mu door a génn ñu tal di koy jegeeñ ginnaaw bu ñëwee gaa yi jël bagage yi ut fu ñu ko defal ab jal am genn basang buñ féere woon bu rafet ñu si gaadee la woon bu rafet boobu seede ñax la ñu lalal ko ba noppi délai ji mu yore woon ñu teg ko ci kawam teg téere yi waaw am na ci nag téere yoo xam ne moom moo ko doon bëgg a boppam du ko jox keneen bu defee bu génnee nag alors ñu taxaw mu ñaanal ñu daal di dugalaat bagage yi mu génne rek taxeem nekk na loo xam ne def na ko fi lu yàgg ci li ma fekki jur bi mu ko njëkk a nag man. boobu xàmmeewuma ko directement ndax boobu ci ay photo laa koy gis rek ak xëy na buy wax ndax boobu télévision amul woon dafa ñëw gaare taxi bi boobu taxi bi compteur mu docteur la ñuy doxee amul waxaale amul da nga ñëw rek mu dugal compteur tarif un tarif deux nanga wala attente taxi bi nag bi mu ko gaaree affaire bi di cak cak cak lu yàgg waa ji léeg-léeg mu ñëw rek fekk ñu ci biir waa ana waa ji ma indi woon fii gars yi na ko comme ñoom diggante ñoom ku ñuy wax Mamadou Penda yaraax waa yaraax xam nañu ko yaraax képp mm-hmm. ak ku ñuy wax Aya Diop ay Samba Camara ndeysaan ah, ak ñoom Samba Dieng ku ñuy wax aussi Aya joob moom yaraax tefes la dëkkoon ak ñoom ñëpp ñi nga xam ne fii bare woon na ñi nga xam ne ay taalibe Cheikh lañ ay mm-hmm. moom bare woon na fa ay taalibe mm-hmm. ko defee ñu ne ko yow du kii moo indi fii mu ne waaw mu ne ko toogal xaar ko mais affaire dafa yàgg na ko toogal xaar ko moom taximaan moom taximaan bi alors mu demee dem ba yàlla def nag bu suñ bi ñëwee mu dal di dem ñun ñu ñaanal ñu yàlla ngeen dund ba retraité fii yàlla ngeen dund ba retraité fii ñaan ñaan yu bëree bëri ñu ne amiin mu dal di jël kii wax kii yaaj yóbbu ko mais biñ demee ba ci ëllëg si waaye daal di ñëw indiwaat sëriñ bi daal di agsi suñu lag daal di ah yéen bi ma ñëw fii de bi mu ñëwee ba pare hmm. yéen ba ma ñëw fii indi kii de moom la wax ne kii mooy sëñ Cheikh nangam nangam yéen xam ngeen ko ba noppi ngeen man bi ma commencé ñaan boobu laa xam nu mu demee. na ko ah waaw loolu de noonu la te moo ko indiwaat comme ni ma waxee mais mujj gi saa yu xëyee day dem ci kër ga foofa toog ndaxaar sëñ bi génn pour mu indi ko bi parc de Hann wala yóbbu ko feneen ñu daal xam ne daal saa yu daal ñëw daal moom moo ko indiwaale moo ko indi saa yu ñëw moo ko indi. finalement dama dégg ne am na taximan sax bu sëriñ bi jëndaloon benn oto jox ko xaw ma ndax moom la nag xaw lu moom mais daal loolu si woon na alors place bi mu doon ñëw nag gis nga fële gars yi toll buntu la moo fa nekkoon léeg-léeg aquarium bi la woon mais fii ci jardin bi amoon na benn buntu foofu lay jaare man dégg naa ci samay waajur yoo xam ne ñun fi yoon lañ nekkoon man ak na samay waajur yoo xam ne ñoo ngi fi nekkoon ak samay waajur waaye dégg naa si ñoom maam Cheikh Ahmed Tidiane fii nga xam ne tey foofu lañ def vivarium mooy fi nga xam ne foofu la nekk te sëñ Fallou Gueye nekk fa tey dégg naa bu daan préparé conférence dana toog foofu ñoom ñu taxaw foofu di ko yëddu di ko xool tiim ci foofu boobu temps akarium la woon boobu temps ay jën lañ fa daan yar ñoom ñu taxaw foofu di yërlu maam Cheikh toog foofu di ko fa xool loolu am na fi. mais moom fu mu doon nekk dañ ko defal lu mel ni ki benn euh, garab yoo xam ne dafa xaw a raabaloo ba mel ni as néeg as mbaar garab yi ñoo raaboo woon noonu. Mm-hmm. moom lañ ko doon jëlal muy def. Mm-hmm. loolu nag 73 ba 74. ok la fi daan nekk loolu la fi nekk. effectivement booba jamono. waaw suñuy waajur ñoo taxaw ñun ñu li ko bi ñu fi ñëw ñu wan ñu place bi nga xam ne fii la maam Cheikh daan préparé ak fi mu doon toog yëpp muy préparé conférence. ah yàlla def nag am na benn doomam bu ñuy wax sëriñ Habib ma xarit la. Mm. alors bi mu dëkk fii ci est bi fii ci Castor. Mm. ba ni mu toxoo woon Yoff bi ñu defar tali bi mënu ma dem seeti ko. Mm-hmm. ah dégg naa léegi mu ngi ca tool yi daal moom itam fu mu axle la lool maa ngi koy siyaare bu baax a baax te sàkku ñaan ci moom. darax ci dolli Serigne Habib Serigne Cheikh moom it daan na ñëw fii man gis naa ko mu ñëw fii di doxantu de sport ba ñuy wax naan ni bant sax boo leen ki for sax am na lu ci nekk bant bi may for nii rek ba mujj gi nit ñi ñoo daan sonal moo ma Serigne Habib daal di bàyyi wàññeeku daan entraîné si fii waaye bërëb bi moom bërëb bu maam Cheikh la woon wax dëgg yàlla. Euh, sëñ bi dafa bëggoon retraite maanaam dafa bëggoon wéet hmm. wet gi mu bëggoon moo tax bu ñëwoon fii mm-hmm. fa ñu ko def dañ ko defar fu laxatu foo xam ne mais boobu itam dañ boobu dañ ko nettoyé ba nga xamante ne xel du nekk sax ci ay jaan yu mel moom it suñu xel daloon na ci loolu parce que loo xam ne lu ñu la woon parce que bu dee wax yàlla ngeen du bërësite fi mm-hmm. am na kenn ku ñu daan wax Jean Mendy buñ booba temporaire moo amoon kenn amul ay li ñuy wax ay problème contractuel ak mm-hmm. moom temporaire ñoo leen di jël rek bu saison bi jeexee li ñu liggéey jeex mu bàyyi leen mm-hmm. ah, man ma ne ko waaye ah, mm-hmm. ba retraité mu ne ko deewuma ki est ce que ñi dee dañ retraité mu ne déedéet finalement aussi ba mu ngi fi lekk retraité am te ba léegi mu ngi dund mu ngi dund macha allah voilà man tamit mun naa seede loolu Mamadou Penda mais ñi su bari ci suñu gars yal na leen yàlla xare ajana ñu bëri dem nañu am na ci nag ñuy dund ñoo xam ne fekke nañu ko xam ñu ko mais am na ñoo xam ne nekkoon nañ fi sax si yëguñu loolu mhm, mhm. parce que suñ bi dafa koo xam ne kii buy ñëw sax bugut day làqatu ba day làqatu suñ <laughs> ceex ak parc daan wax dëgg yàlla lu bëri c'est a à beaucoup de choses yoo xam ne mënu ma am dem ci yu bëree bëri mais daal moom fi nga xamante ne moom sës nañ faak moom mhm. wax dëgg yàlla loolu moom lu neex la te itam bari na ay autorités fii ñëw yoo xam ne. Mhm. ak ay sëriñ yu fii ñëw. Mhm. mais moom siiw gi nga xam ne la ci siiw ci parc de Andal. Mhm. néew na ñu ko fi siiw ci autorité. effectivement muy administration muy muy muy muy affaire religieux ak affaire yëpp. wax dëgg yàlla mais daal. bari nag ñu bari ñoo xam ne ñu dugg ci biir di jàng ay borom xam-xam lañ. yoo xam ne dañu ñëw fii di gëstu parce que béréb la bu neex a gëstoo. effectivement étudiants yaa ngi fi ñëw bon chercheurs yaa ngi ñëw ci façon bu nekk. ñii di gëstu ci jaar ñi di gëstu ci picc ñi di gëstu ci rab ñii di gëstu ci gàncax gi mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. alors kon moom parc de li mu am ci xamle nekkul ne zoo bi rek la lu bari nit mën na ko fa xame kaaru mu jël fa gaynde may jamaal gaynde yóbbu na gaynde seedale ginaaw buñ démé régie ba ñëwaat déglu suñu mbokk Bachir Gueye li nga xamanteni ci nako sang bu tedd bobu di maam ci Ahmed Tidiane Al Maktoum liñ lay wax rek wa shayda shahidun min aliha ki seede fi la nek té loolu tu nek nek na lo xamanteni ci luñu mëna dut baram la ndax ko xamanteni ma fekke wax rek di ma sha allah kon oustad ginaaw bi démé demee régie ba ñëw ba seetaan loolu nga xamanteni ne Bachir wax nako ci si gu tedd gor maam Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum yow ci viwu mystique gu Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum par rapport ak parking bi loo ci mëna wax واو خم قدني وقتنا خديما فدلوا غارا أو كهفا أو سجنا أو أتى لهم المرام لأن تغار ولا تكهف تغرط ولا تخنت ولا تسبريزون تلن يدجلي ما يعلم بدي غار ينتي على محمد تغار وحرا بدي كهف أصحاب الكهف بدي سجن يوسف عليه السلام ما أنا عنهم دفن غار بس دفن غار ولا كهف boo demee géeraw daa ko fa fek ceetu géej ga def na prison fii itam mën nañ ko jàppee comme xunt mhm. mu fiy làqatu mhm. tabarkallah def naa fi méditation mystique am parce que mhm. nit yàlla yi ci barab yooyu lañ doon làqatu pour def seen méditation mystique def na itam prison yooyu yëpp maanaam kon barab yi nit di jëlee cëru yàlla sëriñ Cheikh dem na ci pour jëlee fa cëru yàlla loolu moo ko doon indi fii du na muy wu di fi jaamu yàlla di fi wéet tabarakallahu di fi jokk ak nature bi parce que itam fii ku fi dugal di nga xam ne fii am na relation ak nature bi mhm. amul pollution mhm. wéet na euh, tasaajul atyaar mhm. waaw ci ponte picc yi rab yeeg lenn nekk ni ko yàlla bindee nit yàlla yi ak poète yi yu mel ni daf leen di inspiré loolu moo ko doon indi fii daan nañ ko dégg nag mais mosuñu ci am certitude wax dëgg yàlla waaye tey moom am nañ ci certitude gannaaw bi ñu xoolee reportage bi nga xam ne moo jàll léegi bu dee histoire gaynde gi tam bari na ay coow mais li ñu xam daal te mu wér mooy jëlee ne fii gaynde fii ci parc an ah yóbbu ko jox ko Jamal Abdou Nasser booba la ñu ko def ambassadeur mu war a dem nag présenter lettre de créance am mu ne nañ ko wutal doomu gaynde ma ni ko foo ko jëme mu ne dama koy jox Nasser ma ni ko ah doomu gaynde mu ni waaw ñu dem toppatoo ba am doomu gaynde indi ko ci kër gi mu commencé di yéeg ci sunu kaw ku mu yéeg ci sa kaw nga ni yàgg rek te dafa dis gànn nag moom doomu gaynde gi bés ba muy dem nag mu ni nañ wut kaaf def ko ci bàjjo bi nanguwul kaaf mu ni tey mu toj kaaf gi pour génn mu ni ah sama waa ji nag tey wan na ma jikkoom nag waaye man tam wan naa ko jikko nit de نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن فما فمن أهدى إلى أسد شبلا فقد أوفى همة الأسد إلى الأسد نكو خذه رمز عقيدة ملأت صدري wa sadra shaabi ba mu àggalee kàddoom Naseer moom dafa ittewoo rek laaj ko fan nga jànge mu ni ko ci senegal mu ni ko ci ban université mu ne ko ci daaray Seydil Hadji Malick si radiyallahu anhu wallaay loolu la yaroo nun ñiit ci loolu la yar ba ba bay doon yàlla na ko yàlla nee na mhm. dem Dakar mhm. jaar yaraax mhm. jàpp fa gaynde gaynde jàpp na jox na seer gaynde jàpp na gaynde seede leen ko loolu yaakaar naa nag lu xale xaleen gàtt nopp dégg nga mbay doon mbay doon daan ko gàmmoo bi ci des itam moom moo ko waxal boppam kon bi muy joxe lettre de créance bi euh, Jamal ci la jël gaynde gi mais c'est affaire la ndax dañu wax ne bi ñu koy yóbbu Égypte bi Senghor consulté ay entourage am ay conseillers ne leen il faut se débarrasser de Cheikh Tidiane Sy ñu ne mbooloo gi benn problème rek lañu benn len moo mën a am mooy ñu génnee ko Sénégal te duñ ko exiler parce que buñ ko exiler dañ koy may gloire léegi duñ ko exiler mais dañuy fexe génnee ko ci boru nga xam ne moom du ci sentir boppam. ñu ne nommé leen ko ambassade ambassadeur ñu nommé ko ambassadeur ñu may fu ñu koy yóbbu ñu leen ko comme dafa tabarkaal ñu wax bu yàq teggin nañu ko yóbbu ci jamaal jamaal gaynde la jamaar dina ko yar. ndey loolu la dégg nag baatu nañ ko yóbbu ci jamaal jamaal gaynde la jamaal dina ko yar waa koo xam ne danga ne gaynde la moo ma war yar yow ma jàpp gaynde guy dund indil la ko maanaa yow jamaal du gaynde daa am fit rek ba ñu dàkkante lee gaynde moom nag mu jël gaynde guy dund wax nañ ne ci yaayam muy nàmp ko nangoo kenn ñemewul dugg jël ko mu ne gardien bi tijjil gardien bi tijjil mu dugg nangu ko ci yaayam muy nàmp dem jël gaynde gi jox ko jamaal kon mi ngi tontu mhm. état du Sénégal leen xamal ne mhm. ku jàpp gaynde mhm. guy dund ragaloo ku ñu dàkkanteel gaynde ak nit loolu dañu ñenn dañu wax ne lii mooy histoire gaynde gi maanaam doon tontu ay adversaire am ndax muy dem nag mu jël gaynde gi yóbbaale ko mu demee moo moom la wax na ko way na ko kon am na wax ne uhdi wa man yuhdi ilal asadi siblan faqad istawfa ilal asadi mu ne ñëw naa da jamal ñëw na fekk gaynde ma may ko doomu gaynde ku may doomu gaynde gaynde nag nee na matal nga sa kóllëre ak moom la ilaha illallah faqad di sama matal asadi eh. mu ne mu ne ku ñëw ci gaynde mhm. ko doomu gaynde mhm. nee kon matal nga sa moom mhm. mu ne ko comme Sénégal nag gaynde mooy seen symbole mu ne ko kon jël mu nekk symbole xaritoo ñaari dëkk yi kon nag faqbalhu ramza aqidatin mala at sadri wa sadra shaabi wal baladi xasida bi maam Cheikh moo ko way kon histoire gaynde gi lu réel la ni ñu ko nettalee noonu la mhm. dañuy bàyyeeg historiens yi mhm. ak gëstukat yi rek mhm. kenn ku nekk la nga ko déggee rek nga nettali nu mais bii riwaaya moom moom ci riwaayo bu bu bu bu bu bu ñu jàpp ne bu ci wér yi la bokk ci lañ ko jëlee ndax mag ñi dege war Seydi Cheikh ñu ko jox donc loolu mooy relation ak parc Hann waaw nettali nañ ci sax benn nettalin bu reetaanlu wax dëgg yàlla wax nañu dafa am benn maire bu daan jaay gerte caaf ci bunt bi saa yu ko fa fekkaan nuyu ko jëflanteeg moom ba benn bés nag mu may ko enveloppe xanaa maire bi dajji na enveloppe bi gis alal ji ci nekk bari loolu mu yéeme ko Sénégal kuy mayee nii mu daal di koy néew nuyu ko maire bi ne ko ah waay jërëjëf doom doom jërëjëf ah yow de wute ak Cheikh Tidiane si mi nga xam ne wax na ba tas kër baayam te xam ne maam Cheikh lay waxal garde bi mu wanee garde bi ne ko mais est-ce nga doon waxal léegi ki la nuyu may la xaalis bi mhm. mu ne ko déedéet mu ne ko ko may Serigne Cheikh Tidiane si mi ngay wax mhm. dëgg naa maire bi koroog lañ ko gëj a gis fii loolu ci nettali yi nit ñi nettali la nettali nag xam nga day bëri ah tabarkàlla ku ne ak façon mhm. saxiix am xayru saxiix mhm. kaana min a mag ñee ko nettali mhm. loolu daal lañ jàpp ci relation mystique ak méditation bu mystique bi nga xam ne maam Cheikh am na ko ak parc an daan fi jokk boromam ay kéemaan yu bëri am na fi koo dajal mu am lu la nettali ñu fi doon liggéey ñu fi daan fekk taalibe yi daan fi daan ànd ak moom ko daan teel am nga ci loo ci nettali am nga ci mais daal barab bu mu bàyyi woon xel la. lan moo fi nekk lan la ko fi yàlla woon. Mm-hmm. allahu alam. Mm-hmm. macha allah relation boobu mu amoon ak parc bi macha allah am na solo mais vie mystique am bu dul parc bi. lan lañ ci mën a wax. Mm-hmm. ah ça c' est autre chose. li ko may doon ne woon autre chose. Serigne Cheikh c' est autre chose. waaw Serigne Cheikh leneen la. benn mbokk nee na ma kooku euh, bokkul ci concours hors série la bokkul ci concours. dañ koy décerner kubam rek jox ko waaye kenn du ko dugal ci concours ndax ñi muy rawante ñoom moo leen raw waaw nga ki sañ taxaw wax ne wala xat aliftuhu daal xalifati qabla kawli jannan wa kuntu arahu wa huwa yaraani bi nuurul xaybi jeex na décliner sa vie mystique wax ne avant may gane àdduna may nekk fotis la wax avant may nekk fotis janin ci sa embryon ci sama biiru ndey nee na ci laa miinoon Serigne Babacar Sy bu muy dem ghaib may may dem ghaib bu ñuy rombante ku nekk di sali sa morom kuntu araw iserani bi nuuril xay bi kon kooku ñala ñala fa nga fa nga fa nga ngemboo du mhm. vi tamit mhm. def na ci lu nga xamne mhm. ay ay ay mbir yu nga xamne da ngay xamne kudul mom mënu xam nga xeyna wax ne day tabaxal serigne babakar ci juma ñu ne ko juma ji du taxaw mu ne leen bi leen tàggewul yalla juma ji na taxaw juma ji taxaw na wala juma ji taxawul lolu mistik moko man bi ci dess léeg-léeg nitu yàlla way mbaa mu wax nga yaakaar ne sëriñam lay wax fekk boppam la jàngale haza rasulullahi yowma nuzulihi mutaqallidan bil haqqi wal burhani muy def reportage u audience su Seydi Cheikh Ahmad ak yàlla mhm. moom fan la nekkoon <laughs> sakune haza haza arab rasulullahi yowma nuzulihi mutaqallidan bil haqqi wal burhani di wax image yi nu mu nu mu nekk mu man mhm. faraxaan bi safi malaayikin min malaayika yi nañu renwee mhm. di ko rendre honneur def xee mhm. nee na uurul xiin ak ak ak ak wildaan mu xalladun yi nekk ci fenêtre yi ku naan sama may ma ma xool ko kii kan la ndax nee nu ñu sirul aman bi mu kaalawoo ak burhanu sharia bi mu def ma xam ne moom moom Seydi Ahmad Tijaani ak burdu xaqiqatul muhammad yi bi mu sol loolu moo jaaxaloon musuñu gis kuy soloo noonu ñoom ñoom xuurul ayn yi malaayika yi def stan yatalaqanuuna salaataka al uzma nuy jàng hymne national bu rëy ba allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasir al haq bil haq ah wal hadi kon loolu ko amul ko eggul fenn fi munoo ko munoo ko munoo ko munoo def bi ci des ñi mu yar ñëpp ku mu yar ku la xool xam ne yow nitu yàlla nga Seydou Cheikh yar ñi ñar woon ci keppaaram mu téye leen ana Serigne Mounirou Sarr ada sering Mustafa si ada eh, sering eh, sering Abdul Aziz Al Amin ada sering Pap Malik si kumu yaram yar nitu yàlla nga ba ci Maodo Sy même boo xoolee Maodo Sy Maodo Sy mu Alhaji Abdou nu réewul ak lu bari waa teewoon ma bari doo ko gis ci bariwul jëngatu bariwul discours bariwul sorti bariwul lu muy wax fa am lu mu jëlee ci Serigne Cheikh ñi nabi jëngatu place moo tax nag korog ba ñu xëyee ne ku ne ñu naan ko moo kii yam moo kii yam mu ne leen déedéet mënatumaa yem ak kenn waaw mënatumaa yem ak kenn fi ma egg ci sama yàlla kenn rekk mën a doon sama sëriñ mooy góor sang ba sa faas xut bi abal abbas yab na muhammadin yaa akrama afradi alyaani xoolal sëriñ Cheikh sañ tax wax ne laa qassati an mawridahi tazudini awlal jarimatu taqtadi xusraani wax ne même bu ma nekkoon ko bon ku ma nekkoon un raté nit koo xam ne jaarul fi mu war a jaar sax mhm. loolu mënu maa tere man na jël cër yi ma sama Seydi Ahmad Tijaani war a takkal ci tarixa bi mhm. cëru yàlla la mhm. bi gi des poids mystique am mu innahu xalifatun wabnu xalifatin wabnu wabnil xalifati Cheikh Alhaaj Malick takk na xutbaaniyatul uzma Sëriñ Babacar Si takk na xutbaaniyatul uzma moom takk na xutbaaniyatul uzma moy doomu mooy mooy doomu xalifa di sëtu khalifa don khalifa waxuma khalifa khalifa yi de al khilafatu al uzma moy li di tere nelu li mag ñep tek bët te mu tere nak ñep nelaw donc lolu tok na ci ci ñooñu lan ñoo ci tok Cheikh ahmed Tijani al Asharif al Fatimi ñan ñoo ci toog Mouhamadou al Ghali ñan ñoo ci tok Cheikh Al haj Omar al futi ñan ñoo ci tok Cheikh Al haj malik ñan ñoo ci tok Serigne babakar si mu ñëw tok ci yal yàlla yokk tas na ci barkeem te yàlla yokk leeram kooku synthèse la rek mhm. ci sa vie mystique mhm. waaw. macha allah kon oustaz ginnaaw li nga wax loolu am na solo trop ci vie mystique am. mu doguma la oustaz. ci vie mystique am tam mu waxaat mu bindaat lu téere mënul tekki. Mhm. ba un tasiru ta naqulan. wa bi sayriha waladat xututa musayidal bunyaani. loolu kenn tekkeegu ko. déedéet donc ñun bu ñu ko bëggee tekki ñun waa Nouvelle Vision li ñuy def. Ah. dana war de lu day war rek mu ne ana ba uh-huh. bi nekk ci basmala uh-huh. tey dox uh-huh. di déplacé wu ci déplace boobu déplacement boobu ci la évolution wu temps di am ak espace mu ne nag baa boobu départ am ko fu mul jeexee fu mu mënti jeexee espace ak temps ñu ko top ba mu jeex suñ ko jëlewaatee di ko dellowaat ci origine maa nuqtatu tawxiid yi moom la ñuy fekk mu nekk tom bu tawxiid bu njëkk ba nga xam ne mooy nuqtatu zaatil ilaahiyil muqaddasa macha allah maa bastatul xatil saani nee na xam-xam yooya mhm. secret yooya mhm. ak yemul lamb mhm. science yu rëy yooyu nee na tuwiyat bi tawritil kalimu wa wuriyat bi makaaminil injili lir ruhbaani macha oustaz su fekkente ni Seyid Cheikh Ahmed Tidiane si almaktoum man maa dégg ci yenn ci waxtaanam mu wax ni benn waaye dafa waxoon ne ko dafa doon wax ne yàlla tiif yàlla tiif yàlla tiif boo ko defee dina def nangam ak nangam xam nga loolu ci wàllu mystique la mu ne ko demeewul noonu de tam kenn mënu laa wax ni xaatim bi Seyid Cheikh Ahmed Tidiane si moo ko bind man gis moom kenn musuma dégg ñu ne mystique bi Cheikh Ahmed Tidiane si moo ko bind léegi mystique am loolu doon ci bëggee wax lan moo tax <laughs> mu yokkal la ci beneen nee ci bali ndakaaru ya uh-huh. fa dend ak benn góor uh-huh. su ëbbi bi ne tëll mm. mu jàng ayatul kursi macha allah su ëpp bi tel tëll góor gi jàng aaju ko si jékki-jékki métrage bi ne roquette bi ne ratatatat góor gi bëgg a mu ne loxo góor gi xëcc ko. Mm-hmm. góor gi ko góor gi foo mu ne ko dafa mel ni nag bi ayatul kursi ma nga koy jàng. Mm-hmm. <laughs> tabarkalla yooyu day wane. Mm-hmm. ne am na kuy wax mystique mystique lu te boo ñëwee ci wetam sa mystique réer la. mu nettalaat itam góor gi doon lu jiit. te mu jàpp jiit di ñëw tegal ko ne ko am luggal ma ko te góor gi ku nekk xamoon ne miracle la woon ci jiit waaye bu góor gi luggee jiit ji bu laalee rek jiit ji fett ko mu sonn lool ji xaw ko rey nee mu yërëm ko faf ko mu ji bàyyi kon moom dafa amoon sirru bu muy jokkook jiit gi ba bañ loo jiit gi xam nga nit yàlla yi mën àdduna piir te yàlla nangul leen seen ko wilaaya du ñu bind du ñu xaatim du ñu jat du ñu fas du ñaan dañu déggoog seen borom lu ñu xool rek maa lil xalifati mislun fii tasarrufihi wa fii tasarrufihi sirul wilayaati ab xaala naa suuratan fii xusni maslakihi yaa xusna maslakihi fii xusni fii kulli suuraati dañuy mel lu nga xam ne dëppoosaat seen borom ba al anaasirul arba muy cinq éléments de la vi les quatre de la vie la ñuy dem ba maîtriser ko noonu ñuy maîtriser anasirul arbaa muy les les euh, quatre éléments de la vie mm-hmm. loolu la ñuy dem ba ñi nekk ci biir yooyu moo xam rab yi la mm-hmm. soxlawul mu lugg jaan mm-hmm. day xool jaan rek jaan bi jaan bi yaru soxlawul muy fay safara day xool safara bi rek safara bi normal moo taxoon yaa naaru kuni bardan wa salaaman xam nga yàlla mënoon na indi taw mënoon na indi leneen mënoon na def miracle wala ngelaw mu fay safara bi mi moom safara mu xaar ba ñu sànni Ibrahima mu ne safara bu lakk parce que buñ ko joxul ndigal rek du lakk. safar bu lakkee dañ ko jox ndigal. loolu mooy mystique gu maam Cheikh. mooy élément yi la maîtriser ba nga xam ne. Mhm. moom jarul muy jëfandiku. Mhm. moom li mu bëgg ci élément la koy jaarale. Mhm. looloo tax korog ca Tiwaawan. bu ñu naan voilà la mara bu fa. dóor bal. mu dal ci kawam rot. macha allah kon su fekkee oustaz dégg naa boo xoolee dañuy faral di dégg ñu wax ne. suy Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum bii moog Cheikh El Hadj dañoo xaw a niroo ay ay ay ay mbir. ndax bu fekkente ni Cheikh El taxaw na wax ni euh, ñu ne yéreem la wékk ci benn portemante mhm. yére bi wadd ci kaw ànd bi mhm. ndaw si daw na ko yére baa ngay lakk mhm. moo doon ko yére du lakk mukk tuub ko sama yére du lakk Cheikh Cheikh bi wax na ni euh, ca bés ñëw ñu ne keroog ubbal tàkkoon ci dakaar ma bàyyi yàlla ak léppam ndax fital yëpp um naa leen kon donc soo xoolee ñoom ñaar seen ñaari relation yooyu actuellement ni ñu war ko actualiser ak jamono bi par mm-hmm. rapport ak nit ñi mm-hmm. ni nga xamanteni ci ñu ngi desal bayil xel yenn yi mom ak ñen ak nit yalla yu bari sax mm-hmm. maanaam bo waxe koo ko ni ci dañu wax ni tay jamono yëpp mi ngi ci anasur arba yëpp mi ngi ci loxo te ku bëgg saga saga ku bëgg wax safan wax ko ik sa lool lool ne war nañ ko mëna dégg waaw wala déet ak loolu ñun lan lañuy wañ ak lan lañuy jarim waaw en tout cas ñi egg fofu dëkk yu barab yu nekk suñ leen war or ormaalul barabee ci alkande lay dëkk loolu feeñ na ci senegal plan yëpp dina ñëw plan jaxaay plan mystique plan nangam plan orfosek plan lii xeetu plan yëpp danañ ko def mais dara du dox mhm. plan takkal plan guana plan reva mhm. ñaata plan moo am mhm. ñaata tërëlin moo am ñaata gouvernement lañ fi soppi te ba léegi Sénégal lañ gën a alku que Serigne Cheikh moo waxoon ne fi yàlla di tëdd ci réew buñ ko fa yëkkatee mhm. dina bàyyi pax mu rëy mhm. pax ma luñ ci sottiwaat mhm. dinañ ko sotti lu ne mu fees te du fees plan yëpp dinañ ko indi te du fees mooy dafa am ku ñu war a nangul te ba te nangul luñ ko suñu boobaa moom du ci boole wax même bu ko bëggee même moom sax bu dee si yërmandeem dina yërëm bëgg na jur gi lekk tax bu sécheresse am na taw bëgg na baadoola yi ñi ñàkk te doon ay jullit di gëm yàlla fuqaraa ullaah yi ñi gëm yàlla tooñuñu ko bëgg nañuy am prospère am wërsëg yóbbu sax moom dina ko bëgg mais martabaam ak natti bi ñoo ko dul nang wa hakaza munixat lil qutbi martabatun taba masa mahatan janbal masaati martabaam mooy prix nit ñi parce que al martabatu laatu saamaha loolu mooy tax tabarakallah ah kon sëriñ nga continuer hmm? su fekkente li ñuy wax ni yëpp ci góor gu tedd ñuy wax ni yëpp hmm. bés ñëw ñu ne faatu na wala dem na wala sànku na is loolu war nañ ko mën a dégg <laughs> li ñu waxtaan ci moom nii yëpp. fi jaar ak ñi nga xam reportage bi mbokk yëpp wax nañ ko ci moom. ñu xëy xëy rek ñu ne kooku dem na. ndax war na mën a demee noonu. dañ ko war a fàtte wala waruñ ko fàtte wala. parce que moo taxaw wax ni. daf naytu asbaabal xayaati dirasata. moo taxaw waxaat ni man lam yaud Muhammadan fi ilmihi. moo taxaw wax baa un tasirun. moo wax fa ilayka yabna Muhammadin naadaani. wax wax wax yooyu yëpp yëpp. xëy xëy rek ndax kooku war nañ ko fàtte wala war a dugg ci ñi nga xamante ne si rijaalun sadaqu maa aahadullah alayhi wa minhum man qadaa nahba wa minhum man yantaziru maa baddalu tabdila wa tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal amwaatun bal ahyaa'un inda rabbihim uh-huh. ma defoon sànq ci arab nga ne ma téye ko. wallaay kon léegi dégg tëjiwaat nga play bi. mu dem ndax fii mooy nouvelle bi. <laughs> yaa d'accord mu wax ne am na ci nit ñi nga xam ne. Uh-huh. laa tafutuhumul man nii almaniyatu mooy dee mu ne dee du leen rey mhm. li yëf naw pour nu jeex mu ne waaye dañuy noppalu ko mhm. ci seen bàmmeel mhm. pour continuer seen mission mu ne loolu nag waykat baa ko dëggal waykat wax ne laysa man maata fastaraaxa bi mayitin innama al mayitu mayitul axyaa yi nee na am na ñuy dund te dee mais am na ñoo xam ne dee nañ ñu suul leen te terew leen seen mission mi ngi dox ba léegi mais loolu maam Cheikh ni mu ko jàngalee ëpp na nit ñu gënoon contesté ci Sénégal fii muy maam Cheikh

xaadu maam Cheikh bi la ñu xeexoon ba dugal ko prison te bi ñu dugal prison ay sëriñu diine ñoo bind wax wax Senghor parce que Senghor daf dama koy tëj mais ñemewu ko tëj ndax ma ko tëjee diine jog dal ci kawam ñu ne ko utal alibi fexeel ba sëriñu diine yi jox la légaliser la ko am na am na liste ku dem ci mag ñi ñu jox liste mag ñi signé woon pour ñu tëj Serigne Cheikh loolu def nañ ko ko fii ci xëy nañu jàpp ay yëpp tëj leen fii ci Sénégal mhm. tëj Serigne Pape Malick tëj Serigne Moustapha tëj doomam Mouhamed Bachir mhm. yóbbu leen kan Abdou Diassi mhm. ñëpp jàpp def nañ leen fi yëpp ci senegal ak yeneen ak yeneen yu gën métti mhm. xëy nañu fekk ko fii ci Sénégal fii euh, fenêtre Mermoz génne ko këram exile ko guddi indi contingent armé pour bëgg ay njabootam réagir ñu fital leen colonel Thiam moo ko jite woon amoon na fi mu bàyyi la rek yàlla rek tey nit kooku ñu doon def loolu fii ci Sénégal xëy na day dëggu teewal ñu ne ko doo fi gàmmu jàkk sëriñ Babacar si mu taxawoon tabaxoon ñu ko doo fi ba tax moo dem muy gàmmoo ji course ba dund na ba muy génn àdduna fanweeri atam yi mu di ñu ne ko dugg ci jàkka bi mu tabaxoon moom ñi doon wax lool ak ñi defoon lool tey ñooy toog lu xew ci Sénégal wala ku ñu bëgg a xeex mm-hmm. daal di jëli waxu Serigne Cheikh teg na Serigne Cheikh waxoon na lii kon kooku day mënu ko suul mukk mm-hmm. man laa yafutuhumul manni li yafnaw bal yastarahu fi fii barzaxin naim dañuy toog ci seen barzax di mm-hmm. manipuler affaire yi mu ne ñoom itam laa yuhlikumul mawt fa yamhu dee du leen rey rek après seen seen seen trace jeex jamais de la vie ba lépp xaa zikruhum ma al ajyaali jiilan jiila te nee na waykat bi wax na ko mhm. moom sax moo ko way mhm. waaye ci bindu na arab rek moo tax ñu ne fa xaalal xaayil waaye moom moo wax ne mhm. lam yashuru bi ghiyaabihi fi qabrihi fal gaaba man sakana al quluba qalila damay wax ne ñaari sëriñ moom la leen ñetteelagum yàlla may na lañ Sénégal du mayul kenn kenn du xëy soo ba ngoon tooxoo sëriñ Fallou wala waxoo sëriñ Babacar si maa leen wax fii ci Sénégal ñaari sëriñ yi la yàlla defal loolu nit du xëy suba ba ngoon doo xëy suba nga te dëggoo ñu ne barke sëriñ Babacar si wala wala barke sëriñ Fallou beneen boo fi jël nag mën nañoo toog at yàlla kenn du la tudd mm-hmm. wala xew-xewee tax ñu tudd la mais ñaar ñi moom mm-hmm. chaque jour nit ñi tudd leen tudd seen i jëf moo tax lam yashuru bi ghiyaabihi fi qabrihi maam Cheikh nee na ndawi jamono yëgunu faddu Serigne Babacar ci bàmmeel mu ne xel xaaba man sakkanal xuluba xayla sadr boobu moo ko tekkil aj moo ko tekkil boppam mm-hmm. aji bi mm-hmm. mu wax ne ku deenu fàttale ba ba xol yi du sa bàmmeel maam Cheikh moo ko wax ca géeru waaw mu moo tax mm-hmm. ci bu fenkee moom jantam dafa topp benn trajectoire trajectoire bi indi ko ci aduna bu nga xamne aduna ba aduna djup la aduna aduna àdduna xam-xam la aduna ba aduna leer la aduna aduna orientation la nee ci fami bo xamne min khiratin karamin lil khiratil karami mune te lolou moy lim li wax ne la nafi huda tariqati usratun laqad bayahu al axtaaba fiha wa ma wa ma wa ma wa ma xaanu na ci fami bu nga xamne jaayante nañu ak nitu yàlla yi waaye ba nu jaayantee ci nitu yàlla yi muy sëy ku mel ni Seydi Ahmad Tijaani ak ñu ko donn mhm. ne na woo maa xaanu ñu mhm. seen seen jaay mhm. am na bénéfice ndax taalibe bu ñuy wax ne Alaaji Malik génn na ci taalibe bu ñuy wax Sëriñ Babacar si génn na ci taalibe bu ñuy wax Seydi Ahmad Tijaani si génn na ci taalibe bu ñuy wax ne sa gannaaw tund ba kenn mënu tudd seen tur te ñëpp xam leen génn na ci waaw nee na jant boobu moo tax mu sañ waxaat ne inna bani malikin laa yaarifu luma minna ahdasa rajuli waaw kooku mooy bi ñu koy wax fii ci Sénégal lu nañu tuumaal ko ne moo ko def mm-hmm. day waaj coup d'état day complot Senghor mm-hmm. day def lii mm-hmm. day taal xare day def guerre civile nangam nangam ak nangam mu ne leen man ci askanu Malick laa bokk mu ne ñun sunuy ra sunuy sunuy sunuy sunuy nempantal sax rus nañoo def lu ñaaw ndax innal gawaamida malabu sibiyaani wala na xad istabarna min addunya mataamiaha zuqna al mararata zuqna jawdata al asali waaw moom moo ko wax mu ne fata tabaati shamsu falkaha nee na nag jant boobu topp na trajectoire am ci galaxie bi mu doon bi mu nekkoon doon fa dox xaw ma Voie lactée la xaw ma war galaxie la ci àllamul dañ ko jël ci àllamul ruux ya wala ñu di ko ci àllamul maddi ya nee na jant ba daal topp na trajectoire am mu seet xam Tijaani ca dox nee na ba xëy ci le 15 mars 2017 mhm. nee na ci la jant boobu suux mhm. nee na est-ce que suux boobu nag mhm. dafay tekki na suux na mu jeex wala suux wala tekki na suux na waaye ay ceeñeeram day des di leeral àdduna mu ne bàyyi na fi ay ceeñeer yu xam ne tàkk na te dootul fay te ku ne mën nga saa jafal taal la nen loo bëgg taal moo tax mu ne fas al ujib ka ayuha sail sawa an kunta saxaafiyan muxbariman aw aaliman mutaqassisan aw ma adiqan xabiran fas al لكن فاسمحني فاسمح قبل أن تسأل أقول لك والله والله قبل أن تسمح أقول لك فاسمح أقول لك فمن أين تبدأ وإلى أين تنتهي والله والله والله والله ودال غور كو تاد كي امول فاي كومونسي امول فاي جيخال داخ نين ني نيب مو ني غارانتيل دوغل ني تي بير بايت با نحن اولاد تجاري من ابوات المعاني ابوات المعاني فمن اين تبدا غنا يف دافني ولا نافين نصيب نصيب فوق غايات الاماني mu mel li muy wax mi ngi jàkkaarloog moom mu ne jamaa al xayraati fii na ixtifaasan bil mabaani ne qad daana fa ajab na fa ajab na nee na ko huwa miqbaatu zaman waaye nahnu zannan naa bi anna huwa miqbaatu zaman miqbaatu zamani la shak xam nga wax na ne mu ne bëgguma dee ndeysaan ñu ne ko ne ma bu ma dee di àjjana rek laa jëm ñaa mu ne lu yàlla di joxe àjjana am naa ko ci àdduna ba yàgg mu ne waaye léegi sax bëgg naa dee mhm. ñu ne lu tax mhm. mu ne dafa am ñaar ñu am aljanna mhm. te amul ci àdduna mu ne ko ñu ne ko ñaata mhm. mu ne àjjana mhm. amul wax ju sew mhm. amul jëf ju sew te àdduna fi dafa am wax ju sew am jëf ju sew te man Seydi Cheikh Tidiane ñaari rek laa bañ ci àdduna wax ju sew ak jëf ju sew laa yasmauna fiha laxwan wala taasiman ilaa xilan salaaman salaama nee na su ma bëggee dee rek loolooy tax waaye bu dul loolu a lu wuti aljanna ndax li yàlla di tax teraanga nekk milliardaire doy na sa aljanna wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan ndeysaan ci dellu si ci kanam tuuti foofu laa koy foofu laa koy foofu la foofu laa koy tëjee incha allah nga tëjee bu ko defee ne fa min ay na tabda wa ilaa ay na tantahi ay chapitre la ay chapitre la léegi nag uh-huh. tabda mm-hmm. ci acheikh. bayna ci acheikh. bayna al ilmi wal maarifa. wal maarifa. est ce que da ngay décortiquer wax booy bind yow miy bind. moo xam journaliste chevronné nga. moo xam borom xam-xam bu nu joxañ baaraam nga. moo xam historien bu nu jagleel nga. loo ci mën def sooy bind. fan ngay bind ci moom. parce que li mu làmb moo bari est ce que da ngay bind. Serigne Cheikh borom xam scientifique bi. wala da ngay bind Serigne Cheikh borom xam-xamu mystique bi. al maarifa. d'accord macha allah. ban la ci Cheikh Ibrahima. kenn xamul. boo ci bëgg a wax da ngay. ci bëgg da ngay wax ci géej. da ah? la saaxila la. nee na bu fekkente ne jëloo boobu. Mhm. est-ce que al cheikh bayna al xikmati wal falsafa. Sidi Ahmed Tijani entre la sagesse mhm. et la philosophie. est-ce bi ngay mhm. wala xikma bi ku nekk xam na ne dañ koy woowee sa xakimal umma bokk na ci turam yi ujibatu asrihi faridi dahrihi xakimal umma xakim la mooy lu bi ci nit yàlla yi gagee pour tekki ko mhm. moom tekki na ko tekki ko wallaay tekki na ko macha allah allah bi ñu ko waxee na ko mhm. Abu Yazid Bastami nee na bi mu def na Isra al Mi'raj mhm. te gis na lu ti bu gisul mu jur coow nit intellectuel ordinaire yëpp di attaqué Abdou Basid Abou Yazid mais mu ne mais loolu logique na mu ne parce que président bi ñëw visite officielle ak bi ñëw ci dëkk bokkuñu président bi ñëw visite officielle artère yi rafet yi rek ak boulevard rafet yi lañ koy wan waaye ñene touriste bi ñu ci dëkk tey dem bour dem sali dem Casamance dugg ci ruqu-ruqaan kon touriste mën na gis ci rew le fa président président bi ñu visite officielle gisul mu ne mohammed visite officielle la demone mais abou yassine Bastami touriste la won wallahi touriste la won ma sha allah ko xol ay alcorane bi wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in ñu ne innaha moom julli noonu la ko sëriñ daan tekkee la kabiratun lu rëy la illaa alal xaashiin lu dul ci ñi ragal yàlla kon ñu ne ñi ragal yàlla ñoom julli rëyul ci ñoom mu ne déedéet wa innaha moom julli la kabiratun lu diis la illaa alal xaashiin lu dul ñu torox lu ci yàlla façon xikma waxin yooyu yi mu ci wax tekki ko mës na wax itam ne ndax mës naa leen wax lu jamono dindi تبقى مع الازيان جيلا جيلا آه. أيوة، أيوة. موسى ولا نخلو جامونو دندي لما لن واخ رك موسى واخ رك جامونو مسنا نيو دغال كو ما شاء الله واخنا كو كون نك الشيخ بين الحكمه والفلسفه تاع تي غاي واخ ولا بوك الشيخ بين الشعر والادب سي توس بويت اور بير حياتك في الدنيا هموم واحزان ولو في جنان الغرب ولو في زنان الغرب اسقار ايمان وما عالم ها دم لن تقاسي دبوم آه. يعالج يوما ما يقاسي ما يقاسي شبانه دمنتي الحرب اصبع على من مجنونا والله والله والله دمنتي ولقد درت شؤون هذا الدار دار والله ما شاء الله <laughs> وبحثت فيه من خيال ساري والله والله دمنتي قصيدة يوي ما شاء الله خمسة ستة تونس بوينت اوربير ما شاء الله واي دمنتي تيرمي بن arkaani rawask boobu al islam fi senegal majhul umatu sénégal dama leen ci téré yoy ak yeneen yi mu bind sax teen gisu leen ko dama ci lettre yi mu doon bind ci événement euh, élection 93 diggante Abdou Diouf ak Abdoulaye wad lettre mu doon bind ci xam-xamu nasaraan mhm. macha allah kon dal wor bi mu wax ne uh-huh. les confréries uh-huh. ce sont des clubs mystiques uh-huh. où se forment continuellement les athlètes de la religion lu muy tarikha tarixa il est dix fois plus facile mhm. d'être dispensateur jure mhm. que d'être contestateur de vocation je suis le je suis neutre contre qui parce que le péché de la laïcité mhm. réside dans sa position de neutralité Nous quand on n'a pas ce que l'on veut on se contente de ce que l'on a Mais attention mais se contenter de ce que l'on a est très ordinaire pour se justifier de voir l'admirable principe de ce que l'on veut Ahmada Tidiane. macha allah xam <laughs> lu gars yi doon naan lu neex du doy. macha allah wala boog ak cheikh bay riwaaya wa diraaya te li ne si cin li li si ah. nag yëpp xajul ci biir cin li waaye duñ ko ah. tuur de dañuy dencaat ah. waaw parce que ci riwaaya incha allah macha dégg mu ne da daan ñëw mhm. sëriñ sëriñ say batu nettal riwaaya mustataraf fi kulli fànnin mustaraf dinaa la jox ñaari téere mhm. demal nga jënd ko su dee mosoo ko gis nga liir ko lu Serigne mu nettali bayte bu mu mës a wax nga yaakaar ne amul ci àdduna ci téere yooyu la ko gisee kon liirkat la woon téere bi mi ngi tudd euh, mustataraf fii kulli fanin mustataraf beneen téere bi mi ngi tudd xikam charxul xikam bu ibnu ata ala sakandari waaw charxul xikam waaw d'accord ñaari téere yi mhm. lépp baytu ñaari bu yéemaane bu mu la wax. Mhm. soo demee di nga ko fa fekk. macha allah kon a Cheikh ngay dari waaye xel de lii lay xewee ci biir Nouvelle Vision incha allah. yeneen ak yeneen ni ñëw ci kàttan yàlla incha allah oustaz kontaan nañu baax a baax a baax a baax ci émission bi yaakaar naa xol yi ñuy seetaan fees na te am nañ lu bare bare bare bay xamaat nañ ko ci góor googu macha allah te pourtant xaajale gu ñu sax li ñu war a wax ci moom góor gi moo toll noonu nitu yàlla yi ñoo toll noonu looy wax ci ñoom doo mën a jeexal mukk ndax li ñuy waxtaanee ni mu ngi nekkoon li nga xamante ne si mooy juddoom daa maan na anniversaire mi ngi ñëw ak yeneen yi mi ngi ñëw incha allah dinañ ko suivre bu baax a baax ci kàttanu yàlla oustaz ñu bàyyi la nga wax sa mot de la fin mbokk yi kontaan nañ bu baax bisimilah tabarkàlla mot de la fin bi rek mooy xanaa benn waay benn naar daf ko wax bi ñu ko tàggee Cheikh Al Hadj Malick mu ne naal imaamu lana naayi fa qultu lahu hal la atifta alayhi al ilmi wal amala naayta xayra imaamin kaana yurshiduna wa kaana yamnauna al idlala wa dalala nar bi la wax mu ne nga ñu koo xam day yow bi nga ñu ko tàggee dama naar bi ne ko boo ko tagge ba pare tagge walel xam xam-xam tagge walel jëf bu yiw mu ne ko tàggee nga ko xamne dundam yëpp mo nekkon sembalu fexe ba nit du réer mais loolu yaakar na nar bi wax nako Cheikh alhaj malik mais delu ci waat encore ki Seydi Cheikh bi restam benen way kat waxat ne aynal aynal madaris wal aynal manabir wal madaris wal wal maharik والمسائل بعد والأقلام أو من لحل المشكلات إذا ونت أفكار كل مدقق نفهمي آه. problème بمو سبوزي جي كشيون بني بوزي دين ولا جي أدنى ما مشيخ تاكي ناكو تدوم أمول بان جافي من هذا الذي خاد أبخور اليقينيات حتى أرى ندر رب المرجان نينا جيج رياليتي خوص نكو دم تبير بفخي بطنال ندقن تورس الجماعة متنال نجماعة وقاد في لج المزايا ما يالا دي ما يغور يالا لنكو جاغلي mu nur ci bir xoot xootu mayu yalla yi hatta nala sirra ba mu am secret asirra nak allazi huwa sir wa kharaja يقول وله الحق فيما قال افنيت اسباب الحياه دراسه وبلوت كل وسائل العرفان وقد انتهى كل لحل وائد من ان اطالبه بكل اماني ما منطق الا ودون تعقلي ما عبره الا ودون بياني فتزودت نفسي بكل بديعة وبدائع تبقى على الأزمان كنا يشبهني بالبعد كل مشبه ومن ذلك التشبيه خلبي يرعد وكنت أراني ناشئا متفردا بأخلاقه أو قلت لي أنا أحمد فوالله قد سميت بالعالم الذي يقصصني فضلا به أتفرد يعني جسنا يبيم قد هبره فكان زوجا بلا أسرة mu nekk أم الفمي amul vie conjugale mo nekkoon jeuker borom keur bu amul vie conjugale wa kana abban bila abnin mu nek bayti amul dom ku ma sa gis domam bu wax ne sama papa wala mu ne sama dom Serigne Moustapha Serigne ñi mujj ñëpp ay Serigne la len di waye ñom gi lañ koy wala Serigne Cheikh ben dom musu wax sama papa wa kana abban bila ibn wa mualliman bila tilmizan mu nekkal jangale bo xamne ken ben benn élève kenn gisu mu tek kay di jangale élève waye ko wax mu ñu Serigne Cheikh ma Sénégal yëpp ku fi borom xam-xam ñu lay jaay suñ la interviewé wala ngay scientifique ku ñu professeur bu ñu sofrane bu tax ñu ne man ci Serigne Cheikh laay jàngee wa bila murid mu nekk Serigne te amul taalibe ñëpp koo xam ne mooy sama Serigne te kenn musul gis fu ñu koy joxe addiya mbaa fu ñu koy rangee di ko ziar wala fu ñu koy tàntalee ba su boppam wa siyaasiyan bila jamaa mu nekk politicien bu amuloon mboolo yoon woon parti bu ko nit ñi toppee waaye a posé Sénégal moo mu don ilimaanu ñep ñep def ko seen royukaay te amul jàkka amul juma wa mujahidan mu jihad kat nekkon kuy xexal yàlla bila junudin te amulon armée te musul soulever armée wa raisan mu nekk président bila dawlatin te jiitewul état président yëpp sukkal ko diko ramal di barkelu ci mom fa asbaxal kull wal kull aqul yaduuru fi zillihi yufxal mashiati ma utiha qiyaamu kon nak mam Cheikh أي ساكن البرزاقي حيا رعاية واخترت حب الله عن زخارف الدهر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما شاء الله ما شاء الله أستاذ خالي yëpp ما شاء الله sha انترنتي وعن internet فيزيون waa دي Vision ñu ngi leen di ñëpp ñu ngi leen di di rafetlu oustaz li nga xamante ne si moom lay traité thème bi di wax ni kontaan nañ bu baax a baax baax a baax a baax a baax kon daal bu yóbboo ñu àbb bayit ba rek delloo ko ki nga xamante ne si mooy Cheikh si Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum mhm. donte ko moo ko waxoon góor gu mhm. tedd ga sëñ Babacar Sy narjuuka fawqal kulli wallahu shahid mais afil ardi duuna tijaani ma sukkandu. mun sukkandu wallaahi wallaahi def ko foofu. wallaahi dëgg nu nangul la ko tam nu nangul la ko macha allah kon loolu nekk na loo xamante ne si mooy góor gu tedd googu macha allah kon yàlla nañu yàlla taas ci barkeem yàlla yokk leeram bàyyi ñu ci baax a baax a baax ci ëtt yi nga xamante ne si moom la ñu séq ak moom si débat bi kon nag waa nouvelle vision macha allah ku bëgg xam suivre ko rek macha allah te topp leen di nga ci dégg yeneen ak yeneen ak yeneen macha allah comme na ko góor ga defee ca ñu defee ko ci biir parc an yeneen ruqam yëpp macha allah dinañ ko visiter di ngeen xool ci biir internet bi macha allah ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. kon nag ñu ngi remercier ñi nga xamante ne si ñoo nekk ci parc bi jëkkee ko ci commandant bi ak lieutenant bi macha allah ak mbokk yi nga xamante ñëw nañ di def teema ñaar yi ci biir comme ku mel ni ñoom. ñoom Bachir Gueye macha allah ñun ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal. di leen tatagal Abdoulaye Traoré ak Fatou Bindo ba nekk ca France ñoo ñëpp ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax a baax ak taxawaay yi nga xamante ni def nañ ko ci dalee ko ci commandant bi ak lieutenant bi yëpp macha allah gis nañ jàppale bi ak taxaw bi di wax ne rek yàlla mi am fay yàlla na leen yàlla fay ñi nga xamante ni si ñoom Bachir yàlla na yàlla kàttanal leen wéral leen ak ñi nga xamante ni si mooy sunu chauffeur bi mooy moom sunu chauffeur la sunu xarit la macha allah ñu koy wax si la wax dëgg yàlla ñoo ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax a baax a baax taxawaay bi am na solo ak caméraman yeeg photographe yeeg yëpp macha allah ak waa régie ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziara di wax ni rek. la chaîne des valeurs fii la incha allah ñun ñëpp ñu bàyyi xel suivre leen wa axir daawana alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamualeykum mu jël fa gaynde yet jamaal dem Ndakaaru jal yara mu jël fa gaynde may jamaal gaynde yóbbu na gaynde seedale